Sénégal na ngeen abonné bitim réew na ngeen abonné KBN na sikkal abonné daaru maam Omar da liggéey lépp lu ci daaru salaam mbaa mu dañ fa yónni Amadou Daam mbaa mel ni moom ci liggéey yéen mbokk jullit yi tedd yi ñu toog yéen ñëpp ñu leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di wax di sant yàlla bu baax a baax ci may bi ñu may ñu teewoon daaw ren fekk ñu fi ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil di sant sunu sëriñ sunu yaakaar sunu lépp Mawlana si dala jox ndaw ndax lii yëpp moo ko waral ndax waxoo ne ne bokk ci man ndey mënu koo sëy bàyyi mënu ko fokk gosuñ jaay jënd ko ndimbali yàlla la kon ñun yàlla dimbali nañu ñu ngi wax alhamdulilah rabbil alamin ci bokk yi bokk ci njabootam wala si dala jow taw kon ñu ngi nuyu ñëpp di jiital nuyoo bi sunu bàyyi sunu sëriñ xalifa Mouhamadou Bachir di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi yokku fanam yokku wéram ak mboolem jawtu Mawlana Seydi El Hadji Omar Ndaw ndax seen yàgg gi fi suñu sag la suñu tiital la da nga de tey tamit dañu gunge ba tax ñu mën a ñeme kon seen yàgg njëriñ kese la ñu ngi ñaan ñoom njabootu Seydi El Hadji Omar bi des yëpp ñu yàgg fi góor ak jigéen ndaw fa tabarakallaahu Sëriñ Moustapha Ndaw ñu ngi mu taxaa ndaw ñu ngi siyaare di tëbb wa tabarakallaahu di wax ne fii waxtu wu dañoo kontaan am mbégte dafa ñëw ndax li tax xam-xam bi fi rotaan waxoon naa fi daaw ne ne su ko digloo tey buñ ko diggaate déwén la yow sëñ bi gàmmu xam-xam ngay wax yow mu année moo moom moom dafa xam-xam ngay wax te xam-xam mooy jëriñ rek mooy jëriñ kon fii lépp lu ci mën a dégg ñu kon nag yal yàlla yokk sa fan yokk sa wér di nuyu waa Daaru li nga wax dëgg la li nga wax ne njabootu El Hadj Omar Ndao li nga waxati ne nag yéen waa lii da ngeen man bu ne maa ngi gis ndaw ku ndaay gis naa ne liggéey waaye léegi dafa yóbbu fii dafa ñëw te du lépp alaaj Moustapha kon yéen ñëpp alaaj Jóob bi yëpp kon nag yàlla yàlla dëggal si daayira bi yàlla yokk seen fan yokk seen wér sëriñ bi nag jox na ma pour ma présenté ay mbokkam yoo xam ñoo bokk ñoom deret ak ay taalibe yoo xam ne teewlu ci bis bi xam nga xamante ne moo njëkk mooy kële mooy kilifa bi mooy Mouhamadou Moustapha ma mu Muntaka miin ngeen ko ndax fii waxtu wu ne ñëw na fi ki nga xam ne moo jëkk topp mooy Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Sidi Tahir Ndaw yàlla yàlla yokk leeram ci barke alquran kër moom tamit sëñ bi rafet na lool ci teewaayam borom yowaatet bu neex bi macha allah yàlla yàlla yokk si yokk si yoon Cheikh Ahmed moom moo topp ci ñi nga xamante ñoo ñoo si njabootu si Adama Ndaw ki si topp mooy Cheikh Mouhamadou Ibrahima Ndaw yaakaar naa Ibrahima ñëpp yi mën nañ ko fi jëlee ñëpp ràññee nañ kon sëriñ bi nee na mu ngi kontaan lool sa teew yow Cheikh euh, Cheikh Ibrahima Ndaw bu mu juumul ki ci topp mooy Cheikh Mamadou Bisul Kéemaan moom sax mu si waroon ko fii ba Dakar dak ay itam yëpp ñëw ngir teewlu sëñ bi ci bis bi ndax mosin bi dañ bokk ci ñaar yëpp dañ bokk ci ndey dañ bokk ci baay kon euh, Cheikh Maodo Bachir jëlu tayi xam daal li def rafet na yàlla yàlla yokk sa fan yéegal ci kër Mawlana Sidi Alhaji Omar radiyallahu anhu kontaan lool ci teewaay bi wax dëgg yàlla ndax mbokk mu ngi lii la ma mën a bokkoon ki ci topp mooy Cheikh Mouhamadoul Moustapha Ndaw ibnu Khalifatul Mouhamadoul Bachir mu ngi nii teew ci mbooloo bi sëñ bi nee kontaan na ci sa ñëw gi di bég lool di kontaan lool ki ci topp mooy Cheikh Mor Moustapha ibnu Makki Ndaw mu ngi nii teew sëñ bi nee kontaan na bég na ki ci topp bu ma juumul mooy Cheikh Mouhamadoul Abdoulaye Ndaw ibnu moom mi nga xamante ne jàng gi ba mu door ba léegi waxtu wu jot moo koy jàng kon Abdoulaye sëñ bi nee na kontaan ci yow ci sa teewaay ki ci topp mooy Cheikh Mahamadul Yusufa Ndaw ibnu Xalifa Mamadou Moutaxa di rakku sëñ bi ñu bokkoon rek bàyyi ki ci topp man ma fàtt naa sama bopp sax ndax li kuy lim ko na nga xam ne mooy jotal nga xam ne moo di ki ci topp mooy Cheikh Mahamadul Bachir ibnu Matu Ndaw mu ngi toog sëñ bi kontaan na lool ci teewaay bi ak Cheikh Mahamadou Tayer moom Khalifa Mahamadou Bachir ak Cheikh Mahamadou Ta ibnu Khalifa Mahamadou Moutaxa Ndaw ak sunu eh, kii jarbaat eh, ki xam moo du nooru dem waaw nooru dem mu ngi toog sëñ bi kontaan na lool ci sa teew bi ak xaritam Mansour dem dégg de ak Taha ibnu Khalifa Mahamadou Bachir Noor ibnu Khalifa Mahamadou Bachir Makk ibnu Khalifa Mahamadou Bachir dégg de Mahamadou Mansour ibnu ak Murtada Ndaw ñëpp ñu ngi nii toog yaakaar naa dafa mel ni jaww gaa ngi ñëpp toog nañ fi teew nañ ci jëfandu si si dara jox rek la woon ah. ak a Ndiaye mu ngi nii di taalu si kër gi di xaritu ñëpp képp ku ndaw ndax Abibou sa xarit la mu ngi teew. léegi nag Abdoulahi doomu Baye Mouhamadou Murtada mu ngi teew ah ki nga xamante ne moo demoon Sow dem di xaritu sëñ di wóolu rek mu ngi toog fi ak ki nga moo di euh, doomu bi Alaaji Mbàkke kii. Euh, ah aji daw mu ngi nii toog fi doon suñu doomu seen daara mu ngi teewu si bis bi ngir yàlla ak jëmmi Daw ak wóorul boo xam ne doxoon na diggante bàyyam ak ak ñun ndax bàyyi moo doon jàngal ah nga xamante ni ba tey tamit si sët bi di doomu bàjjenam moom teewul si bis bi. ak Mounirou Cissé ba tey moo tamit teewul si bis bi hmm? ak Ousmane Ndaw mu bay Amadou Ndaw mu si si yàlla mi nga xamante ne nii bay ko def fii ba ñoom seen daara ñëpp waaye yàlla yëpp ñu teew nañ sëñ bi kontaan na ne gis na ñëpp waaw Mansour mu bay talaa mu waxoon naa ko waaw ki nga xamante ne mooy ak ay soxnaam tey ba tey teew nañ fi mooy Fatou Mbaye mooy aawam ñëw na fi teew ka ci tegu mooy Ma Astou ñëw na fi teew ka ci tegu mooy suñu jarbaat suñu jarbaat yaa ngi nekk fi di doomi Adja Ndeye Ndaw moom euh, Chirou Bachir Ndaw kon ñëpp teew na fi ñu ngi sant yàlla bu baax képp koo xam ne ñëw na àlajo ndogo bu góor jigéen mag ak ndaw ñëpp teew na ci bis bi ak montor Tambidou ba tey ñëw na si bis bi fekk na si sëñ bi si bis bi kon nag sëñ bi sant na bu baax gërëm na bu baax lii la ñu waxoon ne ma wax ko kon nag bu fekkee ne jot na da nga dee euh, su fekkee ne dëng na wala manqué na ci man la man maa man maa man man man maa mënta jotal kon na sëñ bi gërëm ñëpp waa daaru salaam ak bépp gan boo xam ne bépp bu gox yu tàkk la ko sëñ bi sant na la gërëm na la gis na la mu lay ñaanal lépp loo xamante ne ni aaj nit indi booy dam yàlla na ko yàlla faj mu xam euh, nga xamante ne mooy sàmm meer bi di muy sàmm sàmm xam na sàmm sàmm ah dam da nga dem daaru salaam yàlla bul rëcc waaw ah, yàlla bul rëcc ci barke alquran te li nga fi digg nag bis boo kii bi nga daf ko mu bu ñu nax mukk mukk mukk incha allah waaw ñu sant yàlla bu baax maa ngi yëgal ñëpp ne dama am gàmmu le 6 janvier si Ngayeen maa ngi koy yëgal ñëpp di si invité ñëpp di wax ne lii dañ ma ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa salaatu wa ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokki julli gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbooloo juróom bi yëpp. di jiital si nuyu bu imaam. di nuyu borom dëkk. di nuyu waa dëkk bi yëpp. nuyu daayatu salaam. di nuyu sëñ bi El Hadj Mouhamadou Moustapha ibnu Khalifa Mouhamadou Mountakha ñu ngi lay nuyu ñu taxalaa gannaaw bu ñu sant yàlla kaddu yi du gudd ndax daanaka cinq jot te ki tax ñu tànn tànn bi ko déglu moom mooy alaaji Moussa kon kaddu yu barkeelu ay kaddu yoo xam ne xamoon na fi démb rek la waaye ki ñëpp da déglu doon ko xaar ren ba déwén muy fii te xam-xam lay wax comme ni ko Mansour waxee ko xam-xam xam-xam ak gam bokku gàmmu siiw la bu mën a rek am xam-xam hmm. foo fekk ku fees xaalim dëgg bu ci gam dina bo mo mo ne siiw rek ñu am xam-xam waye xam na xam-xam de bi ma demee di jang do fekk ben way mu ne fo deug mo ma ko dal salam ñu ko muur musa sama ko mo ne ko am mu lo fe loo wut mu ne ñun ñi ñu laa jàngal moom ñu doon jang wax dëgg ya mu ne mo lo fe wut ma bu lu tax mu ne woon ñun ñi lay jàngal ñu moo moo moo jaar si ndax si luñ ci pour ko mooy koy leer la te la njëkk loolu moo doon jàngal alquran ci màkk kër Abdou Xacca maag Mansour mii mooy ñu jàngal Bachir Mbemara ba suuratu Yaasin te loolu laa gën a bokkoon ci alquran fi mu nii kon sama la yow bokk bàyyi gàmm gi ba mu ko sosee ba léegi mosu fay dem te woowul ma daaw laa yi te ñaaw teew te da ma am gànt am dem gàmm waaye at buñ koy def dana mu si xoo dama ma ko teew dama ci jox cër loolu nag wax di yàlla yëg la ak bokk ak bokk dañuy ànd kon loolu ko cër bi kontaan nañ ci man su moom naay pensante rek mi ngeen gàmb te konoon doy na dama fi teew li waji laay rek waaye teew moo fi nekk cër donte cër bi xam na cër bi moom yàllaa koy jox ni yaa ko du bi ñu koy sos na cër bi xamoon waaye soo ko wóyee lu toon du wóy te kon du mu ci mer mu ci gisoon bopp ku ne jox na cër kon ñu ngi see yooyu nga jox ñu ko rafet nañ ko gërëm nañ ko sant nañ ko bu baax a baax a baax a baax fa tabaarakallaahu loolu la ñu wax nañ ko jotal bu defee daayiratu salaam bi nga xam ne ñooy def gàmm ñoom ñëpp xamee na leen loolu daayir bu am pas-pas bu taxawaay ñu bëgg alaaji woon ndaw ñu bëgg waa kër alaaji woon ndaw amuñ fa xaaj ak seen danaa ñu gis daaw lu bëri ñu ñoom nañ dañu la ñu indi te alaaji Moussa santu leen ko man santu mu leen keneen santu leen te am na ñoo xam ne kay seen sëriñ rek la ñuy liggéeyal waaye taxaw boo xam ne sa sëriñ rek la ngay liggéeyal a jëriñoo su doo sa sëriñ mu lay jëriñ ci lépp mais nit yi ngay jëriñ ñu sëriñ ak jàmbur waaw ah wulu yu moom ku liggéey rek yàlla fay wulu taal bi la xamul kii moom bëgg ci kim xam mooy ki ànd ak moom te yàlla tax jox sa xol bi yéen waa leen dem ngeen seen xol bi jox ko waa Daaru Salaam amu leen ci xaaj ak xeet loolu nag sëriñ jëriñ ne ne leen jëriñ ñëw ci loolu na ngeen ci sax bu ngeen seexee da ngeen jëriñu tey da ngeen jëriñu xëlëb yàgg anti bi yàgg nañ koy tànt pour màgg wa sallam yéen boo xam ne màgg yàllaa ko njëkk a màggal wa kullu ma yuxtasa bi qadri zaman fa qadruhu jaasa xanu doolu buxtaan kon kooku màgg na ba pare suñu wandaw nee ne yonent bi foo natt dara jàmm ne yegg na fa fekkaloo ko koo xamul loo koy màggale xaqiqatul Mustafa الأفكار عاجزة عن حملها حقنا أبلغ تبيانه kon bu ko jot sañoo daw ne dëgg dëgg rasulullah xamuñ ko kooku moom na koy màggale waaye dañuy tawaru kan di tànt tànt bi moom la ñuy màggal kon màggal boobu ñu koy màggal yal na yàlla fay ñu koy tuub fekk xiwu rëy ñu koy màggalee nag ci téeréem sañoo woon daw ci keppaaram ci waxam ci fuyoo daatam ci fatum ni ko yàlla xamal nga xam ne diggante rasulullah ak Cheikh a woon daw ci lañ koy màggale ñu sukkandikuñ ci benn téere muy faydu balaa na sañoo li mu jot faydu la duñ ko ci kaas duñ ko ci paan faydu lañ ko jot ci bi muy woy faydu faydu lanwaar moom bokku ci xol bi faydu lanwaar bokku ak fatu man ngaa am fatu ñu la nga jot lépp te fekk xam koo faydu lanwaar ah? waaw fekk mu xam koo faydu lanwaar waaye yàlla faydu lanwaar la bugg ci xolam sañoo won pour mooy wax faydu la gannaaw bu mu jotee fadu ba pare yowaatib bi moom faydu la faydu la boo xam ne yàllaa ko ko tëbb ci asmaa ulaay husnaa juróom-ñeent fukki tur juróom-ñeent yàlla tudd mu xam ko xamu ko kenn xamu doon wax ne su ma téye su paree dund ak piis dana fi jafe dana fi yomb mag ñi ba njëkk bu daan tukki dañ ñàkk piis su ma tukkee man fii ñëw ma kenn du tukki nekk ñàkk yére waaye kenn bi téere bi paree dañ commencé jël piis yu di ko jaay wa kursanan wa adiyatan li mbuxti min salwa yaa waxaam ko peese ku mu neex jël bala neex sang bi mm-hmm. mooy ki tax ba xiif amatul jëgi dund kenn dematul ñamu jeex la kenn gisatul lépp sa ñaan la yow sang bi mooy ki tax ba xiif amatul jëggi dundu kenn dematul ñamu jeex la kenn gisatul sa ñaan la yow sang bi sa ñaan yi lépp a fa dal ndax jullit ñi fi mu ne nit ñi kenn tewatul kii fa tam li ngir sang bi way ki dàq rafet la ñu sol yére bu ñu doon ni di ko peese ku mu neex jël bala neex ngir sang bi ñu saagalee sang bi ak jaboot yi ak dëkk bi te ñu bàyyi xel bi leeram yaa ko peese sang bi ki dàq rafet la ñu ñu doon li ñu jaw di ko peese ku mu nekkal bala ngaa sofir sang bi waaw ko tabarakala am na sañu wa ndaw wa adnini wasilan bi noori murtadiyan murabbiyan kamilan rasulullah bi mu rañaane yàlla alquran daf ne fat suma dana fat dala yonent bi daa jege yàlla yàlla di jege rasulullah kooku ngeen gaaw a dajee wala koy jege mu lay jege da ngeen gaaw a dajee soo daw ne wa at ni waasilan yàlla moom ma rasulullah wasilan maa ngi wusul waaye bi ñëwri mu tëddi yan nag dama lamboo leer xew mu fa mu rab yan kaamila damay yar day mat ku mel ne ko mën ngaa yàlla waaw ku yar alay sëriñ Mourou Mbacke Diallo sa Touba Sahet ku ko ku yar ka ko yar ka ko yar kooku mën a yar te daf noonu yéen leen duggoon ñu mel goxi Sénégal yëpp ñu bàyyee ko fi ku nekk mu duyul ba nga fees te li ma xam ne du wàññeeku duy alay jeexal daf ko duy door a commencé comme soo ñëwoon daw dafa duy alay sëriñ door ah. waaw. dafa door a commencé commencé am kii fa waaye ba mu commencé bañ leen dañuy siiw bañ naa ni ñu xam ko bañ leen dañuy jàmm ko mu far commencé wane yàlla waaye sa ñëw nag su bañu toon kon dañu moom la ñu def sëriñ moom kenn képp képp waaye bëgg bëgg yàlla ak bëggum bëgg julli moo tax mu xamee ni mbiram daan na def benn dog ñu laaj ko dog bi ngay def lu tax nga def ko mu ne fi ma toog sama néeg képp këru diine ku taal laay laay la laaw maa ngi ñaan yàlla ku taal ba fay foofa xanaa loolu mooy def nit ñi bokk kon xalifatullaahi la waaye xalifatu rasulillahi la yonent bi la xam moom nga dajee di nag rasaqana laahu mulaqatan nabi bi joodi wa fali mustawi bi fi kulli lafsatin min al-awsaat wa kulli haalatin min al-haalaat sa yoon dajewut ak kenn du bàyyi jàmbur du bàyyi kenn rasulullahi yàq satan direct mu jox ko li mu ko joxe muy nub yi ndaw sa ci moom rek la zayku mu rab bi xam nga ko kii politique ñëw fii tey yàlla yàlla jox la ay wu yàlla moom nguur yàlla na la ko jox te su la ko joxee yàlla na la jég li nga fi diggee yëpp yàlla nga ko mën te soo ko mënee yàlla nga ko mën a def dégg nañ bu baax say kaddu jot na matal na rafet na am na solo yàlla am nguur yàlla yàlla jox la ko ñëwale kaddu yi foofu ndax cinq heures daal ko jot na te sëriñ bi commencé ko te moom la ñu déglu wasalaamaaleykum wa حسين حسن عسله الله هاديا يحيد الروح والحال عسله الله هاديا يحيد والقصد والأصحاب زد أكرمي زد أكرمي سمامين قدمه الله مختارا على الكبرى تزهيزا وحمدا سلمي سلمي وفاء فضلا على النبي وفاتحا مخلقا اهتعى في قدمي في قدمي رسولا من متاع جنة جنة متاع رحمتي مفتاح جنتي حبيبه على الإمام لا تيمين لا تيمين ومفتاح مغفرتي مغفرتي لقاء معرفة فواته علم اليقين نسر الحسمين نسر الحسمين ونسر الأئمة للخيرات وصف رسول الله رسول الله مصطفى mutaka ay borom géej bay tay moo balen galal aji makiyo ak bay mansoor mun ma safa yaa balen galal galal musafa والمصطفى أغنى الناس وخيرهم خلقا وأطهارا بعد من رسول الله واستمد ساته حسنا ومرتبة تبة فاق لها ومن ومن ومن ومن معجم معجم من ليس طويلا من رسول الله جزاء يومنا برد فتفاق من كان من العدمين العدمين من سلا يقصد من تم لقامتي كما جديد سفير لسنا وأدعج أصحل أنجل قدمي قدمي وصلي بياضي حمرة العين تسرب وبسله أنه سمعان في سمن في سمن وأهدب أهدب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 xalif Mouhamadou Bassirou Ndaw yàlla na fi yàgg te wér ak njabootu Mawlana Seydi Hadji Oumar Ndaw ah, waaw xam naa ne suñu kàddu bu gudd kàddu sant la ak dégg ci teewaay bi nga xam ne yàlla dogal na ko tey ji teew ko fii yaakaar naa kàddu yi fi jot a jaar yëpp euh, li ñuy wax doy na ci déglu ndax kii nga xam ne mooy sunu mag sunu kilifa Cheikh Mouhamadoul Moustapha Euh, nga xamante ni mag la ñu neex a mag la yoo xam ne am na yërmande ci ay rakkam foo fekk ba yëm mu ngi génn dinañu waxtaanal dinañu kafal dinañu reyal ba suñu xol bi ñeme ko ba say bañ sañ koo laaj loo xamante ni su fekkoon am na neneen ñu mel duñ ko ko mën a laaj tey jii kooku noonu moo toog fii war a jàkkaarloog jaam yàlla kon ñun suñu kàddu ci bari waaye li nga xam ne laay wax waa daayira bi nga xam ne ñoo jàpp jëmm ju tedd ji sëñ Mamadou Moustapha maa ngi a xamal ne jàpp ngeen seexu kaamil sëriñ bu mat sëkk ndax li ñuy doyee sëriñ mooy koo xam daf lay jinni yóbbu la suñ borom yaquudu sul ilmi ilal jinnaan wa yuusul xaaris li rahmaan borom xam-xam da jubbanti omat la yóbbu la aljana waaye xaaris bi daf lay jokkaleeg sa borom xaare bi gën a mag nag mooy ki boole en seexu taalim ak seexu tarbiya kii dafa boole ñaar yooyu boo demee ci sariyatu islamiya bépp téere bu ñuy jàng fii ci ci attewoo jàng na ko ba jàngale ko ay at ca ndax bu fekkee seexu tarbiya la xam nga ne kuñ ne xalif Mouhamadou Mountakha borom Allah borom al alquduusu fi xaybil haawut almuntajili bi asmaahi wa sifaati fi adrati laahut ki nga xam ne danaan soppeeku ci xaal ak jalaal ak tasir melan xamante ni boo jàkkaarleeg moom waxtu àjjuma gay dañ yoolor yenn saa yi bi moo koy gën a tiitlu gën ko raglu gën ko gën ko ñàng kooku mooy bàyyam xalifu Mahamadou Muntaxa dafa nekkoon ci xaal boo xam ne mooy tëlwin xaarif bi laay xam ne la mooy tëlwin mu ngi jógee ci baat bu ñuy wax lawana di firi lawnu maanaam couleur yenn saa yi sifatu jalaal dafay soppeeku ci yaram wi soo jàkkaarlee moom may ni gaynde jox la léeg-léeg sifatu jamaal soppaliku ci yaram wi boo jàkkaarlee moom mel ni weeru badar ñun ñu nekkoon Daaru Salaam daan junneeg ndox ajuma xam na kan mooy Xalifa mu dafa daan na génn ci pour daan nañ dox waxtu àjjuma jot nit ñi di noddu di noddu sëriñ bi toog ci këram ci sibaar gi di xaar di xaar dàgg julli nañ yeneen dëkk ko julli nañ ñoom te boo ñëwee Daaru Salaam tout souvent Daaru Salaam day xaar xalif Mamadou Mountakha du am ndigal waaw lu la inna lillahi hebatan law saalu alam yukum saata lam yukum ha am na si jaamu yàlla ñoo xam ne suñu xool yow ak ko suñu borom yow ak yàlla fomm ko mu fomm ko. ndax suñu borom moo ne sama jaam bi du dëñ di nekk nekklu di ma jaamu ci ay nawaafil ak ay faraata faraayit ba mu mujj nekk moom. man kaana lillaahi kaana laahu lahu kalif Mouhamadou Mountakha dafa nekkal boromam ba suñu borom nekkal gi mu doon nekkal Allahu. suñu borom mucc nekkal ko rek moo wut mu doxaat suñu borom moo ko ku ma nekkal ma nekkal la. moo tax bi mu ñëwee ci Baba Tenda jàkkaarloo géej gi géej gi di mbindeefam yàlla moo xamante ni Seydi Hadji Omar Ndao dafa waxoon ne képp koo xamante ni jël nekk ci asamaani juróom-ñaar ba ci tax sariya ñu teg ko ci sa xef yi wala hijaab yi dakkal la ko nga jàkkaarleeg moom mu teree laa xëf soo leen nga yàlla waxul a dëgg bàyyi Seydi Hadji Omar Ndao bàyyi Seydi moo moom ku ñu tëjal kiiraayu asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar dafa nekk ci ajaayib dafa nekk ci ay kéemtaan tegal la ko mu ne dang mu teree laa xëf soo ne xam nga yàlla la rasulullah soo ne xam nga yàlla waxulu dëgg si laa jamono moo waxoon loolu kooku mooy borom fadu comme ni ko euh, sëñ Ibrahima waxee léegi kooku nag moo nampal ci anwaaru xolam bi mu la nampal xarit mu doxaa jox ko mboolem luy ndigal ak leer kooku nag doomam bu toogee fii jàkkale waa leen yéen sang yu teg yii ak seen say si rafet yii yéen jigéen ñi si lay commencé ndax wal mu'minina wal mu'minati wal xaanitina wal xaanitaat yàlla tuddul fenn alquran góor bàyyi jigéen. ah jigéen ñi. rawatina nag ndaw ñi nga xam ñu ngi ci gox yi fasandikoo di sàkku piraanga xaduna di ko andi di ko kerelee seeni way jur képp koo xamante ni yaa ngi fii nii maa ngi ñaan ci barke bés bi ci barke borom Baba Tenda ki jàkkale woon géej gi ne ko hee ne teg ma dox wuy sa borom moo ma nekkal muy xalifa Amadou Mountakha lépp looy sàkk na ko am bëgg tay bi yow Samba Salla da ñëw ci barab boo xam ne bërëb bii dama ne tàng loxo ci kalam mbay sama gars yi ñoom dañuy dagg aay yi di teg nekk man du ma jaar foofu yëpp sa bàyyi dañ moom ne ko bi oto la oto oto oto oto da nga def la kii na mu bëgg li mu bëgg sëriñ bi nga dundal ko noonu ba loolu sàppi ko fii mu teew ñu nag ku ñu jam ñu naaj waaw ku ñu jam ñu naaj bitim réew na ngeen abone KBN sikkal abone daaru maam Omar da liggéey lépp lu ci daaru salaam mbaa mu dañ fa yónni Amadou Daam mbaa ku mel ni moom ci liggéey